champion maa ngi ñi ngay fay. sant yàlla bu baax. tey am ngeen bis bu mag tey ci uh-huh. wàllu lamb sa dig seen ak ki nga xamante ne moom mooy uh-huh. sa rakk di ko bëri. mu am combat bu rëy tey. Uh-huh. en tant que ci biir Pikine en magam tey boo amoon kàddu yooyu wax booy ñaan de yan kàddu lay doon. waaw moom ñaanal ko la ñuy def yàlla ko yàlla may ndam bu sedd guy ci barke yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa barke liggéey ndayam ñu ko koy ñaanal combat bi xam nañ fu mu toll xam nañ tamit si lu ñu jaral ak fi ñu combat bi yóbbu ak fi ñu bi yoobu duñ def lu dul ñaan mi am ndam yàlla may ñu ndam mais sama xel dal na ci préparation bi ci li ma gis. noo gisee Boy Niang te gisoo ne dafa wàññi poids. macha allah macha allah. gis nga ni dafa athlète non taxaw na macha allah. mais gis nga Tapha Tine. non gisuma ko mais quatre-vingt-quinze kilos mun na affronter ku ne te booy ñaar romb na cent du dëgg effet du foofu. tey boo doon digal sa rakk tey ci combat bi ci ko wax bu bari. Ah. booy ñaar def na boxe. amuñ daal lu ñuy lu moytu combat bi laajee xeex gars yi bu ñor te bu buñ tàppale ko gis bëre. waaw bi mu kuy dem guerre doo wane ñu ngi ñaan yàlla ñu mën yàlla yàlla may ndam amul leneen lu ñuy calculer ci combat ndam rek moo ñu jig te dañuy daan combat bi du match nul ndam moo ñu jig ndam ñu ngi ñaan yàlla mi am ndam yàlla may ndam dëgg bu baax eh beere ko kaay kaay fii kaay kii bu ñëwee rek kii bu ñëwee rek lépp mën na kii moo ñu jàngal bëre moo si père Massar Diop jeunesse bi jeunesse bi non Pikine ku ne xam noo ci non violence di dëgg ñun ñooy recevoir ñooy xaar bu ñëwee nañ leen teral yaa ngi dégg sportivement daal leen jëli bi i ba pare gunge la allah.